asalaamaaleykum Sénégal yow sénégalais bi foo toll ci àdduna xaa fekk na la fa nga nekk ah? jox la conco bi ndax corona bi jeexagul de bu leen fàtte ñàkk yi tey la samedi dellu si di leen sargal fu ngeen toll tey nag moom du wax ci politique ah du ma dóor xeer kenn tey moom lu ñuy wax promotion la quoi. waaw parce que dafa am affaire bu am solo boo xam ne si tey dañoo ñëw présenté ko fii ci Italie te ki nga xam mooy testimonial bi ñëw di vraiment koo xam ne yéen ñii may xool ràññee ngeen ko ku nekk ci réseaux sociaux bi xàmmee na ko su ma leen waxee dimanche 17h rek xam ngeen kan laay wax mais bala ma surprise la bala ma leen di wax turam ak santam xool leen li nga xam mooy spot bi nga xam ne si tey ji moom la ñëw doon présenté fii da man ma Découvrez le bouquet africain.tv, la première application 100% légale de chaînes et de contenu africain. Accédez à 5 chaînes sénégalaises et à 5 chaînes de divertissement. TFM, RTS, Soulieuf, A+, Nollywood TV, Trace Africa et beaucoup d'autres. Tous les hommes sont pareils. Tu voulais détourner de l'argent là dans mon salon Retrouvez également plus d'Afrique et ses centaines de programmes à voir et à revoir en illimité sur tous vos écrans. Divertissement, films, séries, jeunesse. Testez-nous, le premier mois est offert. À partir de 2 euros par mois et sans engagement. Avec le bouquet africain.tv, mettez l'Afrique sur tous vos écrans. Voilà, surtout les gens Europe xam nga série yi ñi leen di won li nit ñi bëgg série yi ci Sénégal lu nañ ko bëggee ci Europe bii jigéen ñi fi nekk ñi finalement le bouquin africain nga xam ne testimonial bi nga xam ne yéen ñëpp ràññee ngeen ko mu ñëw tey ci Italie ñëw ba Brescia man mii ma dem fekki ko lii la fi indi woon muy application bu bees le bouquin africain point tv ok nga xam ne ñaari euro rek dafa naa ne moom nga ciy fay par weer mu yomb trop nga mën a am sa série yépp laa wax léegi nag ñu dem ba Brescia doxantu fa daje ak ñi nga xam ne si ñoom la soxna si àndal ñu ñëw ba Italie maak moom ñu daje fa lii lañ fa waxtaan ndax lii moo ko indiwoon Italie lii lay présenté tey jii ca Brescia présenté na ko fa suba dina ko def fële ca Milan dina wër dem Espagne dina ñëw Allemagne dina wër fépp ndax application bi fépp foo nekk ci Europe mën nga ko am mën nga ko télécharger am ko sa écran sa téléphone sa iPad sa computer sa télé ba kër ga di ko seetaan non du ma leen xoolal ñu xool kii kan la surprise bi kan la dafa naa ne ku ngeen ràññee la lan lañ wax ak lan moo ko indi Italie moo koy leeralal boppam ne nañ nag li ci gémmiñu borom la dàqe xool leen ko après mu doogu ñëw tàggu leen peace. asalaamaaleykum sama gars yi waaw Khadim Gueye dellusi na dee waaw tey nag fan la fii ci Brescia gars yi xoolal lii lan sa xam ngeen lii lan la da ko laajte de ak surprise yi mu àndal nag yooyu yëpp lañ leen war indi tey mais nag li gën a grave mooy dama jóge fële ci Bergamo ñëw ba ci Brescia tey. xam nga kan laa fiy daje mu leen ko xalaat de mooy ndaw soo xam ne si dimanche bu nekk ngeen jàkkaarlook moom Sénégal àdduna yépp di ko seetaan kooku mooy. ndaw lii ma ci xapo bëri wax bëri cappal cappal fu ne mu dugg fa làmmiñ bi rëy gàtt ndaw waaye nag xolal mooy daal di bëggee ma ñëw ànd ak kan Khadim Gueye youtubeur waa Italie maa ngi fii teew wala boog. xanaa lii leer na. jeex na yaa ngi nii maa ngi nii jàpp ci combat parce que sinon tam gars yi ne photo montage la du montage. ñu loxo yaa ngi nii gars yi du montage. loolu la demee Mati lan moo la indi Italie tey. ma ne lu bouquet africain moo ma fi indi point TV. Eh, waa Italie jàpp leen ci combat bi Netflix africain. mooy lan.

bu ñu nee déete waaye suñu doom yi. ñi fi juddoo fii ci Europe. ñu ci bari xam nga sax seen olof demeewul noonu. foog ñu xam seen i cosaan ak seen i aada. et eh, dañu ne plus d'Afrique. ñu wax leen seen i wax leen seen i cosaan. xale bi xam moom mooy kan. deru nit ku ñuul bi. fier ci moom màgg ak moom. xam kan mooy Soundiata Keita xam ñoom la job loolu loolu am solo. du ëpp solo. macha allah kon chaîne yi may wax yëpp. yëpp a ngi ci biir yëpp ñu ngi ci application bi. 2 kon promo 2 euros cash 2 euros par mois. waaw weer wu ne ñaari euro moom ngeen di fay 2 euros. Ah. année bi 20 euros. nga mën xol li lii yépp ci sa portable wala sa télé ci sa kër. ñu télé ci poche mo xew. da ngay daal di télécharger application bi. ci sa uh-huh. téléphone. Uh-huh. wala ci sa. Uh-huh. iPad. waaw su ko defee ci bi famille bi 5 personnes da ngay inscrire yow mi 5 personnes 5 mën nañ jël ci benn kër gi utiliser même application. mun koo mun ko utiliser. ndax 2 euros par 2 euros par mois. par mois par mois. yow mais law li nga bëgg yow deux euros ñu la koy laaj. par weer xéewal mën na romb lii. déedéet xoolal xoolal fu te fu mu mën du Italie kese ah. Europe ak fu mu mën a doon. te nag xam nga Italie depuis deux mille ba léegi. fu mu pikiiroo nga naan fay garab ñu xam yow. waaw jàpp samay combat <laughs> bi waaye. <laughs> jàpp combat xoolal ay chaîne la deux euros par weer lan la matul sax ñaari café kon nag sama gars yi mais lan ngeen di xaar loolu moo jëlee Mati Belgique bu ñëw ba tey te man nag vraiment tey dama kontaan ndax bañ xamante depuis 2017 ba léegi tey jii la yàlla doog a dogal ñu daje. dëgg la ma ñëw fekk sama gars yi Brescia ñi nga xam ne côté bi yëpp dañuy saxaat samay bagages ñoom Pape samay daj waaw yow déconnage yu may déconné yëpp ñoom Ndiaye finance moo ñu fi moo. Ndiaye finance waaw Ndiaye finance a ngi fi. c'est Brescia. waaw mais yéen ku bëgg application bu ñëwee fii ci yéen moom da leen di jënd. kon nag. via bi nan la tuddati sax. via Zara numéro 54. c'est Ndiaye finance Ndiaye Ayo. Ndiaye Ayo moom la. Ndiaye finance ma ma nga ne xoolal xoolal. ñu gis Pape Sane ak Ndiaye Ayo ak Ndiaye finance. mooy kii bi loolu bëgg daal Brescia la fii la via Zara numéro 54 lu bees la. kon nag Ndiaye. voilà comme ni ko Pape waxee rek. comme ni ñu defee comme ni ñu ko defee xaayoo rek. waaw fii centre distribution. waaw waaw fii mooy quartier général pour distribuer produit boo bëgg àddina bi yépp jot ci. est-ce que. waaw xoolal nii rek mu dem. kon jeex na kon nag lii laa xam lii laa ci yéen laa àqu. kon jeex na ma lii. xam nga lu wax wala mu def ne. namu ca yabu ca. ku ma ca ba ma ma jël gis nga lii Afrique ngay def sa écran nga yor sa portable bi nga tok sa écran bu géant bu sa kër di xol afrique pour 2 euros par weer mais yow lo bëggati nak ku mel ni waa yow non man man maa ñëw fii la ko présenté gars yi xoolal xam nga matu ni ñu def waaw léegi lancement kese la bu ci kanamee daaj ñëwaat xaadim ngay teebee sama gars yi ñu war a wax bari mais gis nga dañu war a wax dafa bari te application def naa yemul italie gi kese déedéet dinañ ñëw espagne europe bi yëpp muy Allemagne di Espagne di Italie xaar ni bii dafa naa day wax day am fin de ah ba ci kanam tuuti fii ci xaar yi ñu peace and love guys in the world. respect Mati. waxoon naa leen ko de Mati Faala Ngor tey moom dama kontaan sincèrement système bi depuis 2017 bu ñu xamantee ba tey ah mus woon jàkkaarloo tey ji la ko yàlla doo ko dogal ma bëgg ci trop mu bëgg ci trop surtout li ñu indil muy nouveauté boobu te li ci ëpp mooy suñu yëf boobu ci chaîne yi ñu leen won yëpp yi ñu leen présenté ak 2 euros yoo ci fay par weer xam naa def naa ne yéen ñi dootu leen wéet ci kër yi waaw série 24 heures sur 24 plus télé yi ngeen am ay TFM ak ay 2SS ay wàll ay ñoom ñëpp ñoo ci biir ay RTS lépp a ngi ci biir plus euh, suñu yëf boobu nga xam ne moo ci gën a spécial nga xam ne série yi ngeen gën a bëgg ñoom lañu di dawalal 24 heures sur 24 donc mat yi te dina ñëw ah gis nga série bi yéen ñi may seetaan ci Allemagne ak ay Espagne ak France rek la accès mais le reste de l'Europe ku ci nekk mën nga ko am ci 2 euros par mu yomb trop waaw ñaari euro ñaata la ñaari café ah. nga am ci sa série yi am tele bu la neex foo nekk foo jëm fa ngay liggéey ak fa ngay tëdd booy voyagé lépp nga mun ko seetaan mati am na solo voilà tey jii moom c'était juste ñu defal promotion boo xam day am yéen ñi nga xam tam yor ngeen ay brand ay marques yu mel nii ah na ngeen ñu contacter contacter leen ñun mati ñu ñëw defal leen job bu mel nii parce que c'est juste que sénégal yi di toog di ñu seetaan ah, ñu leen di offrir tam li nga xam ay. avantage la yu baax ay offerte yu nice yu yomb te lépp jëm ci Sénégal marque yooyu dañoo war di leen jàppale ok gis ngeen lii le bouquet Africa deux euros par ñaata la ay vingt deux euros ci année bi yëpp nga am chaîne vingt quatre heures sur vingt quatre chaîne boo bëgg am sa théâtre sa série foo toll ak loo bëgg kon nag Mati xaar leen ko Espagne xaar leen ko Allemagne xaar leen ko Hollande xaar leen ko Belgique xaar ko fépp mook staff bi ñëwoon tey Brescia daañ ñëw comme ni ñu def fii ci point bi ñu demoon tey di fa nuyu ki nga xam ne si mooy Pape Sané ñoom moo yor euh, place bi nga xam ne si yéen ñi dëkk Brescia ak ci zone bi képp ko ci bëgg boo leen woowee wala Njaay finance wala Aliou Ba ñoom ñoo yor point boobu nekk ci Brescia nga xam ne si ku bëgg lii mun nga ko am en attendant application la mun nga ko télécharger di nga gis instruction yi nga abone weer bu ne nga fay sa 2 euros wala nga def ko benn yoon ci at bi mu teggeeku la say série du jeex Mati jaajëf ba ci fan yi incha allah di leen nuyu di leen tàggu tey moom clashuma kenn waxuma ci politique waxuma ci dara ba suba wala ginnaaw suba mu ñëw beneen waar peace and love fu ngeen toll xaa fekk na leen fa sargal leen ziare kontaan naa ci yow kontaan ci ñi nga àndaloon kontaan ci gars yi fa nekkoon yépp wuy si woon tey jii ci point boobu ñëw teewlu dégg xam lan mooy la bouquet africain ak chaîne sociale boobu nga xam ne si mooy suñuy yëf peace suñu yëf yéen a ko moom kenn dootu leen ko présenté drame passion mbëggeel suspense feeñ na ci sunu yëf. man xam nga ni xel ne yow yaa jur yaa tu le sais très bien. tu vais laisser la direction Golden à Bâle. lan yàlla tere tere ci ko. sunu yëf chaîne 100 film ak série yu bàyyeekoo Sénégal. da nga am fit yow te ñeme yaa ngi siw ay galaaj da nga réglé de. on a assez souffert comme ça. xàmmee ma ko mànd fi mu toll nii de sa xel mee ngi ci suuf say tànk ne ci kaw. sunu yëf dafa ñëw rek ngeen bëgg ko sopp ko fekk leen seeni série ak seeni théâtre ci sunu yëf sunu yëf télé bi ñu moom